jërëjëf mbokk mi ci laaj bu am solo bi ala kulli xaal gént golo dafa bëri ay tegtal waaye nañ jël numéro yi envoyé gént bi 78 443 75 27 su fekkente da ngaa gént di fopp doomi golo incha allah tegtal bi ci ëpp solo mooy doomi njaalo la su fekkente nag dangaa gént golo dugg sa kër am lim fa jël loolu seytaane la su fekkente ne dangaa gént gont la dàqe nag xamal nitu guddi la incha allah jërëjëf